yaqra'u day jàng fii kulli rak'atin ci bépp rakka bi umul qur'aan ci fatiha yusiruha mbir moom dana ko yellu moom nag rakk bu nekk fatiha kese nga ciy jàng te yellu ko am nañu wax itam nag fatiha ak qul yaa kaafiruun ak fatiha ak qul wallaahu ahad am na itam ñi ngay jàng ci téere sëriñ bi mu ne doo saxalee boo julli ñaar rakkay fajar rakk bu njëkk ci gannaaw fatiha nga jàng ca alam nashrah rakkab ñaareel nga jàng ci gannaaw fatiha alam tara kon da nga mucc ci pexe say noonu mooy sab moom du la mënal dara baral ñu koy def nag jàng yaari alam yooyu noonu ci ñaar rakkay fajar yooyu le waaye des ko yolu nag moom wal xiraatu jàng nga fi duhur ci tisbaar dina xamil xiraat yi nekk na ci niroog jàng ya fii subi ci suba min ak tiwaali bokk ci way guddi mu fassal yi aw duuna zalika wala lu yës loole xalilan tuuti tisbaar moom dañoo sopp nga jàng ci saar yu guddi yi bokk ci tàmbali xujuraat jëm si xabasa lu may na nga xam ne ngay jiite mbooloo am ci ñu wéré di am ci ñu bari soxla kon mën ngaa jàng saar yi gën a gàtt waaye bu dee yow dong baa nga ànd ñoo xam ñëpp dañoo sawar ci julli gu yàgg daal moom boo julli tisbaar ak suba moom dañoo bëgg nga jàng ci saar yu guddi yooyu le tisbaar nag mën naa xaw a gën a gàtt tuuti suba rek wala yoo jëxaru du biral fiihaa ci moom tisbaar bi shay'in ci dara mënul xiraat ci jàng ya tisbaar nag moom lépp dañ ko yelu wa yaqaraw dana jàng fil ula ci rakk bu yëkk wa saaniyat ak bam ñaareel fii kulli rakkat ci bépp rakka bi imul qur'aan ci fatiha wa suuratin ak saar siran ci yelu wa fil axiratayni ci ñaari mujj nag moom bi imul qur'aan ci fatiha waxdaha moom rek siran ci ak yelu wa yatashahadu tamit taaya fil jalsat ci taay ba al ula bu jëkk ilaa xawlihi ba ci waxam ja wa ashhadu dinaa seere anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nee na rakkaam bu njëkk moom ci subaar ak rakkam ñaareelam dañuy am fatiha ak saar te nga yelu leen ñaar maanaam ñaar rakk yu mujj ci tisbaar moom du am aw saar fatiha kese la ñu am ñaar njëkk ñooy amaale aw saar te itam boo toogee ci jotaay bi ci digg bi maanaam boo amee ñaar rakk ba toog di taaya doo fa julli ci yonante bi doo fa ñaan nga yem ci xabduhu wa rasuluhu rek ci gàttal bépp taaya boo xam ne doo caa sëlmale nga xam dara ngaa jógaat doo ca julli ci yonante bi doo ca ñaan suma yaqumu topp dana jóg falaa yu kabbaru te du kabbara xataa yastawiya mbate mu yemoo xaa ima mbir muy aji taxaw dañoo bëgg nag léegi boo amee ñaari ràkk bay jóg jëm ci ràkkam ñetteel ba bu waxagum dara dañoo bëgg dañoo bëgg nga bàyyi ba taxaw jonn jonn door a wax nag allahu akbar lu bokk te loolu dañoo bëgg nag moom lu bokk te loolu nga boole def tonk ba ak waxaali allahu akbar ja waaye lii nag moom bu dee ñaar moom dañoo bëgg nga bàyyi ba jóg ba taxaw jonn door a wax allahu akbar xew kasaa ni ki nii yeef xam lay def al imaamu ilimaan wa rajul ak waay wax dafa moom rek ilimaan mi jiite noonu lay def kenn képp kuy julli moo xam góor la moo xam jigéen la noonu lay def mooy bu amee ñaar balaa wax allahu akbar nu bàyyi ba jóg ba taxaw jonn wa amal ma amoom daal ma amoom fa baax da an yu kabbara gannaaw ba kabbaree al imaamu ilimaan yaqoomu dana jóg al ma amoom ma amoom ay dan ba tey fa ida stawaa ndeem yemoon a qaa iman mbir mi aji taxaw kabbara mu door a kabbara nee na bu fekkee daa am ku lay jiite nag moom bu amee ñaar bay jóg jëm ci ñetteel ba da ngay mel ni ko yëgut bañ koo faale bàyyi ko mu jóg ba taxaw jonn ba nga dégg allahu akbaram nga doon tàmbali sa jóg itam yow itam booy tàmbali jóg buy wax dara ngay bàyyi ba jóg ba taxaw jonn doon wax sa allahu akbar waaye fan dana def fii baq yi yetti salaat ci la des ci julli ga min sifati rukkoo ci melaw rukkoo wa sujjóot ak sujjóot wa jullees aku jataay naxwa maa lu mel ne la nga xam ne taqaddama jiitu woon na dikruhu tuddam nga fi suppi ci suba waaw nee na nag gannaaw moo la waxee njàng mi ñu demee noonu ci tisbaar doy na sëkk ndax li ci des mooy na ngay rukkooyee ak na ngay sujjóote ak na ngay toogee moom jël ma di ko baamu naa ko leerale woon ci bàyyi wax julli suba rek loolu lépp ñoo ko bokk waaye te nafal dana naafila baxdaha ci gannaaw tisbaar wa yustahabu def na sopp la ñeel ko an yeta nafala mu naafila bi arbaxi rakaxaat ci ñeenti rakka mu sallimu dana sëlmal min kulli rakkaatayni ci bépp ñaari rakka nee na nag tisbaar moom dañoo bëgg bala nga koo julli boo sawaree nga naafila ñeent ñaar sëlmal ñaar sëlmal boo ko jullee ba àggalit ba tey noonu nga naafila ñeent ñaar sëlmal ñaar sëlmal ñooñu addis ba waxal na ne man xaafada xalaa arbaxi rakkaatin qabla zuhri wa arbaxin baxdaha xaramahullahu xalan naari waaw nee na ku sàmmoonteeg naafila ñeent rakka balaa julli tisbaar tegaat ci ñeent gannaaw bi ci loolu tisbaar yàlla araamal yaramam ci sawara wa yustahabu def na sopp la ñal ko mislu saalika kem loolee qabla salaatil xasri ci njëkk julli takkusaan ba tey nee na bala ngaa julli takkusaan sopp lañu loolu gannaaw fi la ñeent ñaar sëlmal ñaar sëlmal gannaaw takkusaan nag moom gannaaw takkusaan nag moom amul naafila ndax dañu sip ku naafila gannaaw takkusaan moo tax wala xam dana def fi xasri ci takkusaan kamaa wasaf naa na melale woon fi bëfa ci tisbaar sawa mbir mi wa yemoo illa annahu ndare nag moom yaqraw dana jàng fi rakkaatee ni ci ñaar rakkaña ak oolu yooyu ni aji jëkk nga xam umul quraan yi ànd ak fatiha bil xisaari ca way gàtt ya mi ne sóora ca saar ya mislu wadduha kem wadduha wa inna anzalnaahu ak inna anzalnaahu wa nahima ak lu mel ne ñoom ñaar daa wax ne boo jul takkusaan moom la nga xewoon ci sibaar rek lépp lépp ñoo ko bokkale ba mu des nag dañoo soppoon sibaar am njàngam gudd te takkusaan ñu sopp am njàngam gàtt loolu de la ñu wutee waaye lu dul loolu de moom ñoo ko bokkule dañoo bëgg moom booy julli takkusaan nii activisme ci kanam nga jàng saa yu gàtt yi yu gàtt yi nag moo tàmbalee sóoratu duha jëm sóoratu naasi waaw yu guddi yi nag moom moo tàmbalee woon sóoratu xujuraat ñëw ba ci xabasa wa amal maxari bu daal timis fay joxal dana béel bi xiraat jàngee fi rak xatee ni ci ñaar rakk ña al oola yooyu ni al oola yooyu ni aji jëkk min xaa ca moom wa yaqaraw te muy jàng fii kulli rak xatin ci bépp rakk min xumaa ci ñoom ñaar bi umul quraan yi ci fatiha wa suuratin ak ko saar min na suura ci saar ya alxisaar ya dee gàtt wa fi saalisati mu jàng ci rakkam ñetteel bi umul quraan yi ci fatiha fàq dong wa yatashahadu tamit taaye wa yatashahadu wa yusallimu tamit salmal tiis moom nee na ñaar rakkaam njëkk dañu bëgg nga biral ko wax ko ci kaw tey rakk bu ci ne ñaar njëkk ñi day am faati ak saar te dañu bëgg nga jàng ci saar yu gàtt yi ba tey mu takku saar ñoo bokk ci saar yu gàtt yi mooy tàmbalee suratu duha jëm ci suratu naas yooyu muy gàtt yi rakkaam bu mujj nag moom faatiha kese lay am te it moom doo ko biral biral moom ñaar njëkk ñi lay amee waaye bu mujj ba day am faatiha kese da nga yellu ko su ko defee nag boo amee ñaar da ngay toog taaye taaye digg jóg andi bu ñetteel bi boo jeexee nga taaye sëlmal moom bu ñetteel ba wa yustahabu def na sopp an yatanaffala mu naafila bi rek xatay ni ci ñaari rakka wa ma saad waaye lu ko ëpp foofu moom xayrun moo gën nee na sopp nañ boo sëlmalee timis nga naafila ñaari rakka nee na ñu sëñ mag bi daana dénkaane boo sëlmalee timis nga julli ñaari rakka rakka bu jëkk ba gannaaw fatiha qul yaa ayyuhal kaafiruun rakka ñaareel gannaaw fatiha qul huwallaahu ahad ñun nag boo ko ëppalee ñaari rakk day gën a baax rek ndax ñeent bari na tuyaaba lool juróom-benn yi moom nee nañu ba gannaaw boo sëlmalee timis boo naafilaa juróom-benn rakk yoo xam ne diggante da nga sëlmalee timis ak ba nga ko naafilaa waxoo fu dara lu aay waxoo fu jenn wax ju araam kon dana mel ne ku jaamu yàlla fukki atal ñaar jaamu yàlla gu rafet rafet mooy man salla ba'dal maghribi sitta rakahaatin lam yatakallam baynahunna bisu'in ay xaraamin lañ jubli ci bisu'in ji xadal na lahu xibaadata sintay xasharata sana rawaahu ibnu xusayma fi saxiixi wa tirmidi wa in tanafala ndem naafilaana bi sitti rek xaat juróom-benn rakk faasal kon aj rafet la moom ñu sopp la mooy no mooy loolu nee na boo ko defee juróom-benn gannaaw timis def nga lu baax a baax ni ki ñu waxee léegi nga ne li ci nekk wa tanafulu naafila baynal maxrib bi diggante timis wala xisaay ak gee muraxabu lu ñu xemmim loolu fii ci moom diggante timis ak gee taamu nañ fi lool baril fi naafila kem sa kàttan rawante na bu fekkee ni yow ci guddi gi naafila dalaa jafe xëy na yooyu jamono boo gëmantoogun kon boo mënee baril naafila diggante timis ak gee bari na tuyaaba lool wa am wa am maa xayru saalik ndaa lu dul loolee bi ci anihaa ci mbiram moom timis fa kama taqaddama ma nga mel na mu jiitoo woon rek zikruhu tuddam nga fii xëyrihaa ci kurul moom yéen da nga wax naa la nag ni ngay jàngee ci timis ba noppi la des moom mooy na ngay rukkooyee na ngay sujjoote na ngay toogee moom jot ma di ko baamu ndax naa ko waxee woon ci suba rek ba tey lépp ñoo ko bokk wa amal xisaawu daal gee al axiratu li aji mujj waxiyete moom al xatamatu mooy marax ngi wax jullit marax was mul xisaaw waaye turu geewu nag ak xasu moo gën a jagoo bixaa ci moom wa awlaate moo gën a yeey nee na gee des na ko wax salaatul xatamati jullit marax waaye nag wooye ko salaatul xishaa yi moo gën ndax alquran da koo tudde noonu ca bam ne wa min baadi salaatil xishaa yi salaasu awraatin jooje ngay jàng ca sóoratu nóor soo jëxal woon a biral fil oole yey ni ñaar rakk yi njëkk bi umul quraan ci faatiha wa suuratin ak saar fii kulli rakkatin ci bépp rakka te xiraatuha ak njàngam it ak pooli moo gën a gudd xalilan tuuti min xiraatil xasri ci njàngum takkusaan wa fil axiratayni dana jàng ci ñaar yu mujj yi bi umul quraan ci faatiha fii kulli rakkatin ci bépp rakka sitan ci yelu nee na gee moom ñaar rakkaam njëkk da nga ci jàng faatiha ak saar te bural ko boole ci am jàng li ñu bëgg nag moom bu digg doomu bañ a guddee ne suba ak tisbaar bañ a gàttee ne takkusaan ak timis yow bëgg mu digg doomu digg doomu nag moo tàmbalee suurat xabasa ba ci suurat duha diggante boobu moo digg doomu di tàmbalee duha ba naa si moo gàtt nga tàmbalee xujuraat ba ci xabasa moo doon way guddi mu fasal yi noonu lañ ko teqalee woon dañoo bëgg na kon moom nga jàng ko ci saar yi digg doomu ñaar rakkaam ñu mujj nag moom faatiha kese lay am tey danga ko yàlla boole ci ñaar rakk ñu mujj dañ ko yàllu tam am faatiha kese summa yaf xam toppa na def fii saa iriha ci mboolem julli ga kama taqaddama nam jiitoo woon rek na los fi ci aw melo su ko defee nee na boo xasee weesu li ma la leeral ci njàng mi yooyu da def ci melowoo ci na ngay rukkooyee na ngay sujjoot na ngay toogee jërul ma di ko baamu naa ko waxee woon ci suba moo njëkk wax rek noonu la yëpp di demee ci googu wàll wayu ko dafa def na sik annaw mu nelaw xam la xaaj njëkk gee gannaaw ba nga julee timis te gee jotagut daañu sik nga tëdd xaat tàmbalee nelaw ndax dañuy bañ nga far wuy ba ba nga yeewu fekk muxtaarum gee jàll nde sax bu fekkoon ne gee xas na jot ba nag moom bala ngaa sañ a tëdd nelaw faaw nga bàyyi fi sawet koo xam ne moo lay yee nga xam ne boo naree sar mu daal lay yee waaye li wax nag moo julli nga timis te gee jotagut nag nga tëdd na bëgg a nelaw loolu lañ sib wala xadis sib lañu waxtaan baax daxaa ci gannaaw gee li xëyri darooret ñellu du lor gannaaw ba nga jullee gee ba noppi itam ñoo bëgg rek bu fekkee nekkoo di jàng nekkoo am gan nga waxtaanal mbaa yenn yitte nga gaaw a tëdd rek gaaw a yeewu ndax dañuy bañ boo yeexee tëdd daal di biddanti suba raw la te nee nañu teel a tëdd teel a yeewu moom dana tax a neexum xel dana tax a am wërsëg wal xiraatu jàng ya allati ya nga xam ne yu siru dana yàllu bi xaa ca moom fi salaat ci julli ga kulluha léppam xiya moom bi taxriiki lisaan yi nekk na ci yëngal làmmiñ wa bi takkal lu mu ànd ak wax bil quraan yi ci alquran yàlla moom nee na boo ko déggee mooy nga yëngal saw làmmiñ di wax baat yi waaye nag bu fekkee saw làmmiñ yëngutuwut xel mi rek moo koy wax xel mi rek koy tari moom du doy waaw tari xel mi dong làmmiñ yëngutuwul dara du baax faaw lu néew néew làmmiñ yëngutu di wax baat yi donte déggoo ko sax li ngay wax bu wér wér du ko tee baax la gën nag mooy nga wax ko ba say nopp di ko dégg waaw gën jaa ñuy yàlla daal moom la ci gën mooy li ngay wax soo làmmiñ suufe na waaye say noppi nga koy dégg loolaa ci gën teew nag bu làmmiñ dee yëngatu rek moom day wax baat yi rek loolu doy na ci yelu wa amul jëfru daal biral fa an yusmiha mooy mu déggal nafsahu boppam wa man ak nga xam ne yël yi dana sës ci moom inkaana dem nekk na wax dawoo di moom rek daa wax ne bu fekkee ne nag dañ laa tudd biral ne la biral birëb sàngam xamal ne kon lu gàtt gàtt nga di ko wax ba di ko dégg yow bu fekkee doo ko dégg rek moom biraloo biral daal lu mu néew néew na nga koy dégg ku sa ci yow di ko dégg waaye lu wees loolu moom daal nekk ak yàlla. wal mar'atu jigéen duuna rajuli nekk ne di yees góor fil jahri ci biral yéen jigéen nag wuti naa góor ci góor moom lay sunnaam mooy biral ci fañ ko ko digale waaye jigéen nag moom day yàllu rek te lu biral loolu nag mu ne wute nañ ci ñoom ñaar jigéen moom du biral waxiyee moom jigéen nag fii xëy ati salaatu ci melow julli ba mis lu xoo kem góor la xayra annaha dara naka moom tam bàmm dana tàpp dana tàpp mooy dana lemu rek wala tafruju te du soreele faxitay xaa yu wax du wérale waaye mooy du soreele faxitay xaa yaari lu pom wala xaddu day xaa wala xaddu day xaa du caageenu ñaari përëgam wa takkoon day nekk rek moom bàmmatan di aji tàpp mooy di aji lemu mënu sa wetan tey aji nudu waaye ngëbu gi ba tey mook lemu ci benn la fii jullee si xaa ci ab jataayam wa sujoodi xaa akub sujootam wa amri xaa ak mbiram ma kulli xii léppam daa wax ne nag mboolem melo yi lañuy jullee ci rukkoo sujoot ak njàng ma yépp rek dañ ko waxee woon ci góor noonu la ko jigéen defee dañoo bëgg li ñu wéetee mooy dañoo bëgg góor bu dee julli day soreele ay cëram ñu soree te jigéen ak moom taamuwuñ mu soreele ay cëram ni ki yow dañoo bëgg boo sëggee ba nga xam ne yaa ngi sujjóot léegi say bëti moom na sorenteeg sa biir say loxo sorenteeg say poqtaan nga xam ne moom daal da nga yàng say cër muy soree bu dee boo dee góor te bu dee jigéen nag moom taay moom muy soreele ñaari luppam wala muy soreele ñaari përëgam day mel ne ku lemu rek bàyyi cër yi mu jege ràbbaloo foofu rek la wutee góor loolu lépp nag sopp la góor ga bu yàngutoon dugatee baax jigéen ji itam bu ràccoon ni góor di ràcce itam dugatee baax waaye ku ci nekk rek lañ la digal mooy lañ gën a sopp su ma wisal yi topp dana julli achafa safa wala witr ak wetar xam nga gee la mujjën a wax ci boolem xeeti julli yi gannaaw gee nag ci lañuy julli safa ak wetar ba tax mu ne mu julli safa ak wetar jëxëram ci biral xanaa boo julli safa ak wetar dañoo sopp nga biral ko wax ko ci kaw te wa kazalika naka noonu yustahabu def na sopp fi nawaafili leyli ci naafilay guddi yi al ijhaaru biral wa fi nawaafili nahaari ci naafilay bëccëg yi al israaru yelu dañoo sopp rek ci takk moom naafila goo def ci guddi rek nga wax ko ci kaw biral ko naafila goo def ci bëccëg bi nga wax ko ci suuf yelu ko ko defee sawaabu tar nag kon ci guddi gi leen sopp rek nga wax leen ci kaw wa in jaharan leen biral na fi nahaari ci bëccëg fi tanafulihi ci naafilaam nga fa daalika loolee waasiun aji dagan la nee na boo doon naafilu bëccëg ba noppi wax ko ca kaw ba tey loolu sañas na ko waaye nag daa wax loolu rek waaye ca dëgg-dëgg gënut bañ ngaa defa gën naafilu ci bëccëg moom yàlla ba mu waxoon rek moo ci gën wa aqam mu chaf yi gën jaa ñëw yi safa rakxataani mooy ñaari rakka a chaf day firi tollantiku mu ne moom la lu néew néew nga def ko ñaar gën jaa bare na amul yemukaay maanaam bu la neexee julli ci julli bu la neexee sasoo téeméeri rakk ci ci guddi gi waaw bu la neexee sasoo téeméeri rakk mbaalu ko ëpp kem sa kattan rek waaye gën jaay néew bi safaa nag moom mooy ñaar ñaaram mënu koy yees ba yustaxabu def na sopp an yaqra mu jàng fil ula ci rakk bu njëkk bi umul quraan ci fatiha wa sabbih isma rabbikal a'la ak sabbih isma rabbikal a'la wa fi thaniyati ci bopp ñaareel bi umul quraan ci fatiha wa qul ya ayyuhal kaafiruun ak qul ya ayyuhal kaafiruun wayetashahadu tam itaaye wa yusallimu tam yusalmal bu fekkee nga julli safa ñaar rakk kese moom dañoo bëgg rakk bu njëkk ba nga jàng ca fatiha teg ca sabbih isma rabbikal a'la rakkam ñaareel ba nga jàng fatiha teg ca xul yaa ayyuhal kaafiroon taal taa yusalmal bu ko defee loolu daal nekk ashafu su ma yusalli topp dana julli alwitra wetar rakk xatan benn rakk alwitra lay firi ak péol xam ne benn rakk dong la moo tax ñu koy wax witru yaqroo dana jàng fiyaa ca moom bi umul quraan ci fatiha wa qul huwa allahu ahad wala muhawwidatayn ak ñaari qul a'uuzu yi dañoo bëgg wetar moom boo koy def benn rakk dong la te mboolem julli sunu moo ci gën a dëgër li muy néew néew di benn rakka gannaaw booy jàng fatiha dañoo bëgg kon nga teg ca qul huwa allahu ahad teg ca fàlla xëj naa si wa insaara ndem dolli na minal ashfaahi ca safaaya jaxala kon mu def aaxiru zaalika ci mujj loolee al wetar wetar wa maanaam bu fekkee da ngaa sawar ba doo yem ci ñaar rakk kese kon da ngay def rek ay ñaar ñaar ay ñaar ñaar ay ñaar ñaar rek ba war a jeexal daal koy àggalee wetar xamante ne moom ijxalu axira salaatikum billeyli wetaram def leen wetar mu mujj ci seen julli guddi loolu moo tax nag kon da ngay def ay ñaar ñaar rek ba mu ngay bëgg a bàyyi nag daal jël wetar tëje ko li nga doon def lépp. wa kaana nekkoon na rasulullah yonente yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yu salli di julli dina leeli ci guddi ga isnatal xashrata fukk ñaar rakxatan ci rakka su ma yootiru topp dana wetare bi waaxidatin ci benn waxi la waxee sa yet ci beneen nettali xashura rakkaxaatin fukki rakka ne moom la daa julli su ma yootiru topp dana wetare bi waaxidatin ci benn ñaar nett yëpp wér bee dane da daan julli fukki rakka ak ñaar teg ci wetar mu fukk ñett benn ban daan julli fukki rakka teg ci benn mi fukki benn am na ñu dëppale yaari nett lii wax ne dafa aadawa woon bu jàppee ba noppi julli ñaari rakk yoo xam ne da ko daa woyefal maanaam da ko daan gaawal kenn ki rek moo nett li muy soxna Aïchatu waaye nag dafa wàññiwaale ci benn nett li bi ñaari rakk yooyu te beneen nett li ba wàññiwaale wu ca ñaari rakka yooyu moo tax fee mat fukk ñett fee nekk fukk ak benn wa afdalu léegi ngën ci guddi ga aaxiruhu moo di mu jëm nga li gën ci booy naafile ci guddi gi nag mooy nga dem ba ca suuf ba nga xam ne moo mujj ci guddi gi boo defoon guddi gi ñetti xaaj bu ñaar ñu jàllee ba mu des benn foofu lañ gën a taamu ci julli ndega mën ngaa yeewu ndax la addis ba ne woon yansilu rabbuna tabaraka wa taala kulla laylatin ila samaa dunia xina yabqa sulusul layli al axiru yaqulu man yadduhooni fa astajiba lah man yasaluni fa utiyah man yastaxfiruni fa axfira lah addis ba ne guddi gi boo ko defee ñetti xaaj bu ñaar ñu jàllee ba mu des benn yàlla day wàcc ba ci asamaani adduna si danga wax rek doomu aadama ni mën a ni mën a xame rek ndax bëgg ko jeeñeer ni ko yàlla jegee rek nda yàlla moom duñ jéem a xam na mu wàccee ba ci asamaan soosu waaye daal day ñëw ba ci asamaan si gën a jege adduna di wax naa ay ku may ñaan day wàcc ba ci asamaan adduna si mën a ku may woo ma wuyu ko ku may ñaan ma may ko ku may jéggalu ma jéggal ko loolu moo tax nag bëgg kon waxtu woowu moom mat naa fonk ci te nga mën nga caa yeewu fa man axara ku yeexe tanafulahoo naafilaam nga wa witraho ak witram wa ila axiri ba ci mujjam nga fa dalika loolee aftalu moo gan ne boo mën a yeexe say naafila ba ci waxtu woowu nga door a jóg ne def ko loolaa gan illaa man dara koo xam ne alxaalibu lay aju not maanaam lépp daal xale yi ci moom an laa yantabiha moo di mu bañ a yeewu fal yu qaddim na jiital witraho witram maxamaa ànd ak la nga xam ne yuriidu dana ko namm mi nan nawaafili ci ay naafila aw wala layli ci njëlbeen guddi ga tumma insha topp ndem soob na ko idas tay xasa ndem yeewu na fii axirihi ca mujjam ga tanafala mu naafila macha allah ko soob min haa ci ay naafila mas naa mas naa ñaar ñaar wala yuhiidu waaye nag du baamu alwitara wetar wa daa wax ne bu fekkee yeewu nag lépp ci yow daal boo xasee tëdd da ngay far biddanti waaye da ngay dem ba suba jot nga door a yeewu doo yeewu ci guddi gi kon lu gën a wóor mooy lépp loo nar a naafila rek bala ngaa tëdd da nga koy naafila ba wetal sax boole ci soo yeewuwaatee ci guddi gi nag te amul cawarte nag mën ngaa baamuwaat ay naafila di julli ay ñaar ñaar rek te bañ a baamuwaat wetar ndax addis ba dañu woon laa witraani fii laylatin yaari wetar du am ci genn guddi kon nag ndegam da ngaa jàppoon ne yow sa yeewu ci guddi gi yombut bariwut ba tax nga naafila la nga man wetar teg ca kon boo yeewoo ci guddi gi ci coobare yàlla te sawar da ngay def ay ñaar ñaar rek noonu te bañ a baamuwaat wetar wa man koo xam ne xalabatu not na ko xëy naaxu ñaari bëtam xan xis bi walis dogam ba te loxoo ñeel na ko an yu salliyexoo mu julli ko maa la nga xam ne bay na xoo nekk na digganteem wa bay na tuloo fajri ak diggante fenku fajar wa awal isfaari ak njëlbeenu set ga su ma yootiru topp dana wetar wa yu salli te muy julli asuba suba bu fekkee da nga amoon dog boo xam ne da nga ko warloo yeewu di ko julli guddi gu ne xam na nga ko aada woo moom guddi gu ne rek da nga yeewu ci guddi gi di julli ak lim boo xam ne da nga koo warlu muy ab dog muy sab dog am guddi goo xam ne nag moom ba nga yeewu daa fekk fajar jot mbaa fajar jege te xam nga dañuy wax ne bu fajar xasee fenk maanaam bu salaatu xasee jot rek dañuy aaye mboolem xeet naafile ba mu des ñaar rakkay fajar waaye da nga yow am nga dog boo aada woon julli naka jëkkal daañu la may nga gaaw julli sa dog boobee sib ga ñëw na ñëpp waaye yow génn nañ la ca yow daañu la may dog ba nga aada woon a julli nga gaaw julli ko gannaaw fajar fenkee daal di gaaw def ko teg ci wetar door julli suba loolu daañu la ko may te bu fekkoon ne nag kooku aadoo ko desu ko ko may kon la wala yaqdi du fay al wetar wetar man koo xam ne dakkarahoo fàttaliku na ko wax da am salla ci gannaaw bu mu jullee asubha suba mais sax dañ koo fonk loolu ba nga xam ne boo demoon bay julli suba fàttaliku ne wetaroo te waxtu yaatu dañuy bëgg nga dagg julli suba ga dem wetar doo ñëw ci julli suba gi ndax fonkuñ ko fonk ndax nañ la mboolem julli sunna yi boo weesoo farata yi moom moo ci gën a màgg moo tax ñu wax ne boo demoon bay julli suba yow doom ci waxtoom fàttaliku ne wetarkat defoo ko woon kon dañuy sopp nga dagg julli suba ga dem defi wetar door a ñëwaat ci suba gi bu fekkoon ne nag daa am ku lay jiite nga xam ne kon yow du yow dong daa am ku lay jiite kon na nga wéy rek doo mën a dagg ndax ilimaan jaay tax ilimaan ci lay wute bu dee mooma ndax ilimaan dana dagg wala du dagg boo xasee sol moom nag julli suba ba na dara fàttali ko wetar nag moom jeex na kon na ngay jàpp ne moom wetar raw na la tey ci boobu bis ba ëllëgati rek moom wa man daxala ku dugg almasjida jàkk ja xalaa wudoyin ànd akum jàpp fala yajlis kon bu mu toog xataa yu salli ba te mu jullee rak xatay ni ñaari rakka in kaana dem am na waqtun waqtu yejoosoo dana dagan fii ci moom arrukooxu julli addis ba daa digle bu ngeen duggee ci jàkka na ngeen julli ñaari rakka nuyoo ko jàkka ja bala ngeen a toog moo tax mu ne nag ku dugg jàkka te ànd akuk laab bu mu toog te julliwul ñaari rakka ndeg waxtu woowa dagan naa naafilaa waaye nag waaye bu xasan toogit du tee ñu sàkku mu jóg def ñaari rakk ña toogaay ba du ko rawale bu dee ci yoonu maali nag moom bu fekkee da ngay romb rek jàll du aajoo ngay julli ñaari rakk ñooñu bu fekkee ne ñëw nga te nar a toog rek ci yoonu maali moom dañuy sàkku julli ñaari rakk ñooñu ba tey boo dikkee fekk ñu taxawal farata itam da ngay yéenewaale ñaari rakk yi nuyoo gi far ca farata ja rek bu ko defee ñu far la bindaaleel tuyaaba ja incha allah nee nañu nag bu fekkee ne waxtu woo xam ne dañ caa aaye ku ca naafila kon dañoo bëgg wax subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko yent yoon boo ko waxee dana daal di taxaw taxawaayu nuyoo jàkka wa man daxala ku dugg al masjida jàkka ja wala nga rek te julliwutoon al fajara fajar ajji sa afee kon doy ko lii saalika ñel loolee rak xataal fajri ñaar rakay fajar nee na bu fekkee da ngaa ñëw ci jàkk ji te fekk jullee goo woon ñaar rakkay fajar kon neen da nga julli rek ñaar rakkay fajar mu daal di wecc lu yóbbu jàkk te yoo bëgg rek nga julli ñaari rakkay fajar dong mu daal di wecc lu yóbbu jàkk loolu lañ taamu wa in rakkaa ndem julli woon na nag alfajara fajar si bayti yi ci néegam su ma ataa toog mu dikkal almasjida jàkk ja fax talifa wóoteef na fii ci moom fax yi la waxees na ne yar kaaw dana julli wax yi la waxees na ne laayar taxu du julli maanaam bu fekkee nag ci sa nga jullee woon ñaari rakkay fajar ya gannaaw ba nag nga ñëw ci jàkka ji te fekk imaan ji julleegut kon ndax da ngay toog rek noonu doo sañ a julli dara dara am da nga sañ a julli ñaari rakk nuyoo ko jàkka ji wax ji gën a wóor mooy da ngay toog rek noonu xaar bañ taxaw waaye doo julli dara am na wuute am na waaye la gën a wóor mooy doo julli dara moo tax mu naa wala salaatu jotu julli naafilatan naafila ba'dal fajri ci gannaaw fenku fajar illa rak'atal fajri ndare ñaar rakay fajar takk-takk yi mooy rek bu fekkee ne moom fajar xas na fenk moo xam nodd nañ moo xam nodduñu ñaar rakay fajar dong nga sañ julli ci mboolem xeet naafila yi te da nga defal nga ko sëb néeg moom kon boo dikkee jàkk ji nga toog rek xaar bañ taxaw nga ànd ci waaye doo sañoo julli ñaar rakk di ko nuyoo jàkk ji door toog na di xaar déedéet da ngay toog rek noonu rek xaar ba ñu julli rek nga ànd ci moo tax mu teg ci ilaa tulooxi samsi ba fenku jant ba kere jant bi fenk te sax bu jant bi tàmbalee fenk ba kere lépp di dugg day araam moom naafila bu jant bi fenkee lépp lépp nag te ba nga ci teg lu tolloog ñetti mètre maanaam mu yëkkati lu tolloog ñetti mètre loolu itam sib ga ñëwaat nag maanaam jàppal ne kon feer fenkee dañuy sib naafila ba mu des ñaar rakkay fajar moom rek nga ciy sañ ba kere jant bi tàmbalee fenk bu jant bi tàmbalee fenk mu araam ba lépp génn ci bitti ba lépp génnee ci bitti ba nga xam jant bi yaa ngi seen lépp sib ga ñëwaat ba yëkkatigul toll ñetti mètre ci sa xoolu bët bu ko defee naaf li war a dagal nag nga xam ne julli yoor yoor foofu lay tàmbalee jëm wuti nag tisbaar ji bëgg a jot muy diggante boobu mooy julli yoor yoor du teen daañu la may nag gannaaw ba nga jullee soo wala gannaaw ba nga jullee suba li fekk muxtaaru suba di jeex boo fay jàngal xoraan daañu la may ba accès ci bërëbu sujjóot nga sujjóot te sujjóot boobu daa xawee ci naafila waaye nag may nañ ko foofu moom xëy xëy na ko leeral tam ci gannaaw takkusaan gannaaw takkusaan dañu sib naafila waaye daañu la may gannaaw takkusaan booy jàngal Alxuraan li fekk muxtaaram takkusaan di jeex daañu la may nga mën a sujjóot sujjóotu Alxuraan ba dafa tey daañu la may nga mën a jullee julleeg néew julleeg néew moom fardu kifaaya la fardu kifaaya mooy loo xam ne bu ko ñenn ñi defee ñenn ña mën nañoo toog te dara du leen ci fekk bu ko ñëpp bokkee bàyyi ñëpp bokk am bakkaar gannaaw bu ñu jullee takkusaan nag daañu sib naafila waaye daañu maye ku jullee julleeb néew ba keroog moxtaarum takkusaan di jeex man nga ne sax ba keroog takkusaan yi suuf di jot ba suuf si xaw a xong ndax jant bi xaw a xong bu ñu àggee foofu moom dañu sib ku fa jullee ab néew kon nag ku bëgg a toppatoo ab néew gannaaw takkusaan da nga cay farlu rek fexe ba buñ jullee takkusaan dal cay gaaw a jublu jullee ko balaa muxtaarum takkusaane jeex te mooy balaa suuf see xaw a xong ker yi jàppaloo bu loolu xasee am dañ koy sib waaye nag bu fekkee dañoo ragal ne néew ba kat ku ko gaawuta toppatoo daal di koy jébbal boroomam mu daal di soppi ko kon moom waxtu mën doon rek mënees na ko caa daal di waajal daal di koy yóbbu fa saasa nanu seetlu nag ne bu ñu ragalee ci néew bi ak soppiku bañ wax ne mënees na ko yóbbu ci waxtu wu ne kon xamal ne waxtu wañ ko jullee moo xam waxtu wu ñu araamal la ku ko ci jullee moo xam waxtu wu ñu sib la ku ko ci jullee deesul baa mu jullee ga ci waxtu wa nga xamee ne kenn aayowu ko ca moo xam fekk na ñu suul ko ba noppi moo xam fekkul ñu suul ko ba noppi waaye nag bu fekkee ni néew ba kat ragaluñ ca woon ak soppiku ba noppi ñu jullee ko ci waxtu woo xam ne wu ñu araamal la ku ko ci jullee kooku kat bu fekkee ne suuluñu ko moom des na ko julleewaat ci waxtu woo xam ne sañes na ko caa jullee bu fekkee xas nañ ko suul ba noppi nag kon ñu bàyyi noona deesu ko julleewaat